senegal nemmeeku nañ ne njàngum gone yi jamono ji wute na lool ak bu njëkk ba ndax lu ñuy gën di dem di nemmeeku ne niveau njàngum xale yi day gën di wàcc loolee nag ñu ngi koy gën a seetlu ci bu ñuy wax kàllaamay nasaraan wala sax ci seeni résultat examen bi les censeur nekk fii ci lii ngalaan Ngalandou juuf moom daal dina si indi ay leeral. loolu moom am ñëpp koy waxandoo ñu koy chaque fois foo toll ñu koy wax man nag mun naa ko ci teg xalaat suñu xalaat maanaam ñun buñ ci tolloo ñu euh, ñu doon jàngale ak ñu jàngale léegi xam na ute yoon la nag parce que technologie mu avancé. fu mu tolloon moom moo tax ñu aussi foog ñu toll ñu ànd ak ñoom am na ay matériels yoo xam ne ngi fii amuloon avant da ngay am imprimante da ngay am risographe avant amoon loolu léegi ñu noonu jàngalee da nga doon bind maanaam euh, jàngalekat bu doon ñëw da lay jox leçon ngay bind tey bind dafa xaw a weesu si élèves yi parce que maanaam jot ñu bind maanaam ak seen portable yi ñu yore yooyu yëpp na leen ngay envoyé seen leçon yi ci seen euh, adresse mail wala seen portable ñu envoyé leen ay SMS wala yoo am leen ko si ay groupe yu bees yi WhatsApp mais avant amuloon moo tax boo ko xoolee xale yi léegi sonnatul comme ñu dinoon sonne chaque jour na leçon bu jot ngay bind tey leçon dootoo sax bind da ngay ñëw ñu jox la feuille am leçon baa ngi foofu da ngeen toog di ngeen koy exploité boobu nag ak ngay yit bind bokkul loolu si am nga nu mu yombee noonu si ñoom moo tax aussi coono boobu dañ ci fekk comme am si coono aussi da ngay comprendre que loolu effectivement maintenant boo ko bàyyi nag si euh, xool résultat yi mun nga wax effectivement que loolu dëgg la parce que moyen national boo jëlee bac bi euh, moitié bi maanaam digg bi eggoo ca mais am na école yoo xam ne benn benn ñoom ñu ngi si largement ci kaw moyen national parce que ñun ñu quatre-vingt pour cent boo ko amee ñu àll ko moyen national quarante pour cent la munoo wax si école. niveau bi dafa baissé xëy na nag en général mun nga ko wax pour ñëpp mais loolu mooy situation bi mais effectivement ñun ñi seetlu nañu loolu am na parce que euh, en tout cas boo ko boole ak yow bu ko doon jàngee xam nga léegi fi bu jàng bu tey moo gën a yomb avant. waaye itam muy àddu ci matière yi nga xamante ni ci la ndongo yi di gën di am moyenne yu néew. xam nga maa ngi doon wax avant ñun bu noon doon jàng leçon yëpp képp doon ñoo da ngay dicté maanaam français prof professeur yëpp doon jàngale français. parce que leçon bu ñëw dañ la koy jox nga koy dicté tey dicté sax amatul donc le prof mathématique prof français prof histoire géo yëpp à la limite sax di dicté wutuñu histoire géo bu ñu exploité ko dañuy ñëw fooy ñu ne leçon baa ngi nii élève bu doon bind noonu xanaa day jël prise de note rek maanaam boo maanaam boo xoolee da xalaat fépp mais nag su gën mooy matière scientifique moom daal xam nañu wàññeeku na boo xoolee sax moyenne bi si jàngale yi moyen euh, classe euh, scientifique yi euh, boo jëlee juróom pàcc ñoom benn lañ ciy doon bu fekkee sax juróom benn juróom benneel pàcc ngeen ci jël maanaam ay euh, vingt pour cent quinze pour cent trente ba trente pour cent ren daal mooy matière scientifique yi maanaam moo tax yenn école boo fa demee comme ñun xëy ñoo ciy génn parce que boo xoolee ñun suñu école bi am nañu ñeent classe scientifique pour ñaari classe littéraire mais loolu nag doo ko gis feneen doo ko gis yeneen école yu bëri da nga si jaar jàpp ñeent en tout cas si public yi effectivement boobu mais nag lu ko andi mooy boo xoolee si professeur mathématique yi aussi nekkatuñu si classe ñoom bëggatuñu en fait boo ay mathématique loolu ñëw si jàngale bi da dem presque yeneen domaines yi ay banque ngay dem ay yeneen moo tax ñi fiy ñëw si jàngale yi mathématique boo fa toogee aussi bu fa yàgg donc bu rëwtul léegi ñu wax tam scientifique loolu loolu tamit mën nañ ko bàyyi basé si loolu daal donc boo boole loolu yëpp effectivement mun nga wax daal wàññi matière scientifique ak mathématique yooyu moom bokk na itam ci li nga xamante ni moo waral niveau élèves yi demeetul noonu seenub ñàkk liir loolee nag bi la jàngalekat ak parents d'élèves yi xamle. qualité enseignement bi tey tey tey tey tey Sénégal doy na waar doy même à l'université tu yoo xam ni dégguñu tubaab et que c'est c'est scandaleux c'est scandaleux et lay daf lay yow. c'est que jàng daal nekkatul fa mu nekkoon au top. manque de lecture surtout parce que au fait euh, bu njëkk doo doon am comme par exemple euh, dans les écoles des bibliothèques maanaam quand il a une pause comprendre quand il n'est pas à l'école day dem école lire pour xam gëstu parce que au niveau ça s'acquiert. lecture c'est très important parce que la lecture mu dafay transmettre savoir parce que quand l'enfant bu commencer lire. il s'intéresse à la lecture moo bu mu xam donc laaj loolu day développer culture. li nga xamante ni moom mooy à niveau niveau yi. loolu dafa doon la nga xamante ni lu ñu lu ñu seetlu la ci jamono ji maintenant nag li ko waral bari na tey ji mën naa ko bu ñu ko doon xayma euh, du jeex bu ñu ko doon lim saxla laa du jeex mais mën nañ ci jël quelque yoo xamante ni mën nañ ko li nga xamante ni tey jii mën nañ mën nañ mën nañ wax ni moom moo waral baisse niveau élèves yi man nag ci sama gis-gis euh, jàpp naa ni tout d'abord euh, ci côté élèves yi d'abord ci laay njëkkee dañoo seetlu dafa am ay changements yi nga xamante ni moom moo ne ci élèves yi mooy paresse te dañoo gis ne élèves yi léegi euh, tayal dafa ne ci ñoom trop genre li war si seen jàng effort yi ci yi ci war yi nga xamante ne ñoom war nañ ko def léegi élèves yi defatuñ ko par rapport ak bu njëkk ba élèves yi nga xamante ni bon du ma wax sama masse mais ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu jamono jooju mën naa sax ñun suñu masse gi duggaguñu woon école mais période boobu boo remonté euh, de mille l'année 2000 wala mën naa sax mën nañ avancé ba 2005 ak ci kaw ba 90 euh, période yooyu noonu boo gisoon ni effort yi nga xamante ne moom la élèves yi doon fournir seen jàng tey jii nii génération bu léegi bi defatuñu effort yooyu noonu moo tax loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo waral à baisse niveau élèves yi tey amatu élèves yi amatuñu jotu dem ay bibliothèque di liir amatuñu di di di di dem di defi ay recherche yoo xamante ni daf leen di jaral ñu ci souffrir te loolu bokk na ci li nga xamante ne dafay forger dafay yokk xam-xamu élève tey ji nag loolu dañ ko gis dafa dafa dafa manqué ci ci côté ci côté élèves yi donc loolu mën na euh, bokk ci benn yi nga xamante ne ci euh, facteur yi ñu mën a lim que ni bokk na ci lu waral euh, baisse niveau élèves yi. ana kan mooy responsable lu ni mel waajur yi wala jàngalekat yi. loolee itam ñoom joxe nañ ci seen xalaat di xamle nag ni lu jëm ci wàllum éducation gone yi. ñaari côté yépp la war moo xam muy waajur yi ca kër ga. waaye itam. ña leen di jàngal ca école ya. gis ngeen loolu am na solo solo boo xam ne kenn am tout le temps parents yi nag bu ko defee léegi at école da nga ñu andi sa ay xale début d'année balaa ngeen ñëwaat xanaa fin d'année jotaat mais nag loolu la loolu la autorité yi xam. am na études yoo xam ne formidable yoo xam ne teg nañ jox nañ ko parents yi maanaam mooy euh, boo ci xam école yi mooy planète semaine parent na ngay activer sa compte rek boo ko activer élève dina am compte parent dina am compte enseignant dina am compte foofu ngay jaar nga xool sa doom jàngale bi fu mu toll ci loolu loolu war na tax sax léegi képp ko am longtemps xanaa nag connection doo ko mën a ñàkk pour xool sa doom ci mu nekkee boo ko defee aussi boo amee ay leçon béykee kër ga nga ko jàppale ko ci loolu mais seet nañ loolu aussi manqué na ci maa tax tey bi ngay ñëwee sax ci école bi gis ngeen ay xale nekk fi tey lu ko def mooy semaine bi xëy na lu ñu waroon def ci jàng defuñu ko dañ du du du punition sax waaw mais dañ lay xaw a forcé ku ko ku deful samedi bi da ngay ñëw nga jàttali ko samedi bi loolu aussi parents ak dañu si accompagner dina fekk dina def daal boo xam ne yëpp ñu si taxawee dana ñëw parent nag lu ko def noonu moom nag on comprend dëkk bi ñu jafe na jafe boo xam ne kenn amatul temps moo tax rek léegi boo xool sa école yi euh, xale ils sont plus ñu ngi si école publique yi privée yi que école publique yi maanaam da ngay fay yu bëri parce que amatoo temps ngay joxe loolu école bi mu gérer la ko man école du liggéeyam éducation bi kër ga la fii enseignement apprentissage la ñu war a def waaye on comprend kenn amatul temps ñu ciy profité defal lépp une bonne fois wala daal boo ko defee fu mu toll nii mais euh, am na daal espoir man euh, ku si nekk daal di nga xool benn benn ñaar ñaar am ñu si jàpp am na parents yi xam ne chaque fois ñu ngi fi ñu ngi si nemmeeku ñooñu nag ñoo tax ñu xool ñeneen ñi. que ñoom vraiment duñ si war a def ko. ñaari côté yi la parce que aujourd'hui parent bu dugalee école doomam donc day désengagé wu du ko topp parce que moi je peux pas concevoir un parent inscrit doomam du ko suivre. mais au fait il y a un peu de laxisme de la part des enseignants parce que au fait aujourd'hui les enseignants dañu dugg ci enseignement mais pas par euh, vocation mais pas par ambition bëgg ko mais dañu ci dugg parce que pour pour pour sauver seen bopp. njàng moo gis dafa am euh, njàng njàng de qualité. njàng de qualité moo amatul. est-ce que professeurs yi jàngale sax léegi c'est des bons professeurs lool la ñu war a wax te sa loolu mooy mën a am qualité doo am. que professeur boo nga xamante ni amoo yenn niveau yi ñu fexe ba pousse la ba yóbbu la ci niveau école boo nga xamante ni euh, waroo koo yor xam nga am lu fa dugal benn branlon noonu la mën a demee. rapport ak njàng mu njëkk ma xamante ni mag ñi dan daan yem niveau CM2 di wax njàng di wax français yu leer nañ ay proverbe yu leer nañ nañ nañ. waaw mais léegi moom wax dëgg yàlla njàng mi moom sooxe na quoi. mun nañ ci jël beneen boo xamante ni peut-être man ci sama avis personnel damay ne enseignants yi am na ci part de responsabilité. pourquoi je dis que les enseignants tey dañoo seetlu y des enseignants yi nga xamante ni euh, qualité bi ñuy xaar ci ñoom niveau de pédagogie bi nga xaar ci ñoom euh, nekku fa par rapport ak bu ñu leen euh, comparé ak enseignants yu njëkkee nga xamante ni ñun ba ñuy def primaire enseignants de qualité yi ñu amoon yi nga xamante ni. dañoo am pédagogie dañoo xam fan la ñuy jaarale élève nan lañ koy jàngale ak ci ban anam ba mu mun a am au moins benn niveau boo xam ne si acceptable tey jii nii y a une différence totale entre enseignants yu njëkkee ak yu tey loolu tamit tey jii mun naa wax ni bokk na ci li nga xamante ni tey jii nii euh, ci facteurs yi yu waral euh, baisse niveau niveau niveau élèves yi. parents yi euh, am na ci part de responsable mais jàpp naa ne ils ont bon. cinq pour cent de part de responsabilité que tey jii parent li mu mën mooy jéem a assister doomam à parce que xale bu demee école lu muy jàng dafa am leen loo xamante ne moom moo koy dolli mooy suivi bi à la maison et je pense que loolu parents yu bëri ñu koy def ñu ngi fayal seen i doom ñu dugg di jàng cours du soir am na ñoo xamante c'est eux-mêmes qui assurent voilà suivi bi si seen doom yi seen kër ñoom ñoo leen di jàngal ñoom ñoo leen jéem a encadrer donc je pense que côté boobu noonu les parents n'ont pas totalement euh, une part de responsable boo xam ne tey jii nii mën nañ ko ci souligner par rapport ak niñ ko souligner ci part de responsabilité ci côté élèves yi autant que ci duñ ko bañ mais c'est pas une part de responsabilité boo xam ne mën nañ ko élever au même niveau que les enseignants ou les les élèves en tant que tels. naam téléphone yi bokk na ci luy gàllankoor njàngum xale yi ci seen wàllum concentration. waaye nag mënees nañoo wut ay jéego ngir ñu koy jëfandikoo ci côté bu positif. lu ko def sax loolu lu ko andi maanaam euh, portable bu mu ta ñàkk léegi euh, outil nécessaire la waaye ñun nag ñoo ko war occuper parce que allez boo ko bàyyee mu demeel boppam. xamoo auto joxoo ko lu mu si lu mu si lu mu si cherché dañ defee leneen maanaam ñun école dañuy insister comme ñoom mënut a ñàkk bañ laal portable bi dañuy créer ay xarale yoo xam ne si si portable boobu dañ si jàng maanaam tey xëy na bu ko daaloon sax naa jox benn exemple prof anglais bi lu mu def dafa jox ale yi ku si boo demee kër nga wane ni ñuy toggee salade de fruits di ko làkk ci anglais. bu demee këram waa këram ko filmer moom mi ngi foo mais mi ngi jàngale parce que fruit bi muy wax yëpp si anglais am na solo dañ koy toogee am na ci solo waaw donc moo tax uti portable boobu gis ngeen tey utiliser na ko ci jàng te yeneen am na exemple yu noonu am na yeneen exemple ay ay ay cours yoo xam ne dañ koy jox en ligne tant que ñu koy utiliser ci loolu xale bi dootu am temps dugg si réseaux sociaux yi problème daal mooy loolu nañ ko nañ ko occuper. comme am mënut a ñàkk dootu dem bibliothèque di lire bibliothèque daal mu ngi si loxoom mooy portable boobu nañ si def ay ay li euh, ay ay liggéey yoo xam ne dootul tal ñu ko si réseaux sociaux mais dina toog ci jàngat ci tey kenn waru mën a absenté professeur bu dul ñëw portable permettre na nga doo ñëw mais nga def tey cours en ligne am na. am na ay liggéey yu ñuy jox yoo xam ne boo ko defee xale aussi dañ si mën a jàng donc loolu boo ci xoolee amul amul ñàkkul espoir xëy na dañ mën a du ñëpp ñu am connexion waaye daal en tout cas ñu am gum ñu jàpp ci ñu xam ne lii daal am na solo xeet na nag après ñeneen dañu si topp voilà loolu mooy situation daal na na daal ba lay occupé wul xale dañu occupé seen bopp si leneen. jéem a essayer euh, revenir à l'ancienne méthode c'est-à-dire quand de l'ancienne méthode c'est-à-dire wax naa ko tout à l'heure euh, pédagogie enseignant yu njëkk yi ñu jëm a xool nan la ñuy def jaarale enseignant yu léegi nii ñu dem ba yegg à ce niveau parce que tey boo xoolee na nga am autorisation d'enseigner rek. ñu dugal la ci école boo xamante ni privé la te privé dañoo bëri léegi te dañuy nekk ñoom ci problème de professeur dañuy nekk en manque de professeur du coup yow na nga am autorisation d'enseigner na nga nekk à l'université am benn niveau bi rek du dañ lay ñëw jël ne la enseigner alors que tu n'as pas la pédagogie bi nga xamante moom la un vrai enseignant digne de soxla pour mun a Euh, teg élève bi ci ci ci yoon bi nga xamante ne moom lay mën a évoluer am benn parce que nag enseignant il faut le dire euh, le fait d'enseigner c'est pas parce que tu as la matière que ni tu tu tu tu tu peux enseigner c'est-à-dire il faut avoir une pédagogie et quand on parle de pédagogie c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire comprendre quelqu'un qui n'a pas compris c'est ce qu'on appelle euh, pédagogie alors loolu tey jii nii boo ko amulee dafay doon la nga xamante ne dina dina dina doon benn faay te bokk ci la nga xam ne moom mooy waral baisse niveau élève donc côté boobu anam bi nga xamante ne moom la ñuy accepter wala sax moom la ñuy joxe autorisation d' enseigner du n'importe qui ku jug rek ñu ñëw ñu jox la autorisation euh, d' donc loolu bokk na ci solution yi euh, ci côté élèves yi tamit solution possible na fa c'est-à-dire ñu ñaaxaat élèves élèves yi ñu dellu ci ancienne méthode yi c'est-à-dire di dugg ci bibliothèque yi di bari dañuy dugg ci bibliothèque yi di bari lu ñuy liir di bari lu ñuy euh, gëstu parce que tey boo xoolee avant ces nouvelle bi tey dafa bokk ci li nga xam ne moom moo gën a yokk paresse ci niveau ci ci côté élèves yi parce que yor nga sa téléphone da ngay soxla dara rek da ngay sur Google et tout à ni par rapport ak bu njëkk ba y avait pas des téléphones yi nga a am loolu donc du coup moom mooy waraloon yow da ngay da obligé dem seeti mais tey boo amee un téléphone portable bi nga xamante ne moom moo lay mettre à ta disposition tout ce dont tu as besoin donc du coup boobaa dafay daf lay indil benn pares te parrainage boobu noonu tey jii bokk na ci li nga xamante ni moom mooy rabaisser niveau élèves yi donc si je me rappelle bien ba may nekk euh, primaire euh, am na lu ñu doon wax symbole cest à benn yax la bu ñu doon takk ci buum quand tu parles wolof donc dañ la koy dañ la koy jox et fanaanee ci yow ci payes donc vingt cinq francs cinquante francs donc loolu da doon forcer da doon da doon forcer élèves yi à que donc ñuy ñuy ñuy travailler seen bopp ci niveau français te loolu noonu tey jii bokk na lu doon élevé niveau donc je demande à ce que si possible ñu siwaat méthode boobu noonu di indi ay symbole ci classe yi donc ci ci école yi ñuy jéem a imposer un tout petit ba rek élèves yi ñu mën a au moins di apprendre à parler français parce que tey jii cela justifie nos lacunes d'où la peur de prise en parole en public tey bu ñu nee jël parole en public quand il s'agit de parler français nous avons peur donc loolu ce des lacunes nga xam ne bokk na ci luy confirmer encore une fois euh, baisse du niveau des élèves donc ñu delluwaat ci ancienne méthode ci côté ñu mën a amaat au moins même su dee dañu am niveau boo xam ne ce sera au même niveau que les élèves euh, nga xamante ne bu njëkk ba la mais am au moins niveau boo xamante si c'est acceptable. mu nekk nag ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci wàllum njàng meek njàngale bi ci gone yi nga xamante ne seeni performance nemmeeku nañ ne dafa wàcc lool par rapport. ak njàng bu njëkk ba rawatina ci seen wàllum kàllamay nasaraan ba tax na jàngalekat yi waaye itam parents d'élèves yi doon ci wax seen xalaat waaye itam doon proposé ay solution yoo xamante ni amaana buñ ko defee yooyule la jafe-jafe dina wàññeeku muy ci côté jàngalekat yi waaye itam ci waajur yi ca kër ga